non non mais il y a beaucoup de choses par à dire par rapport à l'amnistie il faudrait déjà qu'on arrive à définir l'amnistie déjà mhm. amnistie fan la jógee c'est les Grecs qui ont envoyé inventé le mot comme beaucoup de mots ay politique démocratie ñoom ñoo invente concept yooyu exactement amnistie l'amnistie ça vient du grec xam nga lan signifier boo ko taadulee grec oubli maanaam fàtteel amnistie mooy fàtteel le dictionnaire j'ai vérifié ce matin dit l'amnistie c'est l'acte qui dispose que des fautes passées devront être oubliées et qui interdit à quiconque, ça c'est plus important, et qui interdit à quiconque de les rechercher, de les évoquer sous peine de sanction. Ah, et on le retrouve dans le projet de loi, article 5, que vous pouvez lire tout à l'heure. Oui. On interdit à tout magistrat, mhm. ultérieurement, révoquer ou de rechercher quoi que ce soit concernant les actes qui avaient été posés entre le 1 février oublions le plus grave mooy il ne faut même pas les encore mooy rechercher wala di koy yëkkati wala di koy bu ci amee dootoo ci wax c'est-à-dire même risque la un magistrat ne peut pas se permettre c'est ça qui fait que cette loi là xel mënu ko nangu et c'est au moment de partir que votre c'est c'est qui cherche à faire passer cette loi moi que j'interprète comme une sorte de blanchiment de crime je l'appelle l'amnistie pour moi c'est un blanchiment de crime de faute d'agression de torture il faut qu'on soit conséquent mënuñu condamner d'un côté agression et de l'autre valider amnistie boo xam ne day fekkee day day tolérer yan yoo xam ne que lëmb ci mbirum politique parce que quelquefois boo ne lii mbirum lépp lu laal mbirum politique mais oui man li mooy et la famille des victimes ñi ñàkk seen njaboot. ñi ñàkk seen njaboot. comment on va faire parce que lorsqu'on parle d'amnistie euh, loo euh, dëkk yi nga xamante ne amoon ay guerre civile ay problème mais lan la ñuy wax foofu on parle vérité justice réconciliation. vérité. vérité d'abord justice. oui réconciliation. oui bii dañu ñëw rek ni ñu. on on efface tout et on s'en ñun on efface tout et ba pare dañuy dem. lu ci gën a garaaw article 5 mënu ma ko bañ a lire. il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire. de rappeler ou de laisser subsister su quelque forme que ce soit dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document officiel les condamnations déchéances exclusions et cetera maanaam kenn dootu war a ci amatul droit wax ci hmm. mais lii moo jéggi daw aussi waruñu ko sax garder ci police di koy wax wala di insinuer wala di koy am na loo xam ne xel mënu ko nangu vérité réconciliation tout ça après oubli problème boo mënta gis di Afrique du Sud du Côte d'Ivoire fu nu jaar. mais mais professeur dogguma la comme temps bi day gaaw est-ce que bu ñu juumee. par extraordinaire non jarul par extraordinaire parce que ñoom ñooy majorité ba voté loi bi. waa léegi plainte yi ñu dugaloon CPI. ba CPI du nii comme ñoom réglé nañ seen fóotum biir kon man tamit damay. non non y a des fautes que y a des qui sont hors de mais mais diggante bi yëpp ci février 2021. oui oui mais CPI dafa am genre genre crime di naan les loo xam ne amnistie mënu ko dindi. mooy les hmm. de sang. Hmm. crime amnistie mënu ko dindi et puis même au delà soxlu dem ba CPI un nouveau président qui arrive loi bi di wax lu yëpp mën na ne dans une compte créer une commission parlementaire créer ça bi fii xam nañu. souvent maanaam lu loxo def daal loxo mën na koo dindi. loxo ah, tamit est-ce que kon tamit état noonu lay fonctionner. non non warul fonctionner noonu mais yenn seetlu si si Afrique yenn saa yi dañu gis ay présidents yoo xam ne ñuy dem ba toog def ay njombe yu garaaw xam ne seen gannaaw narul rafet. il risque beaucoup. et puis leneen aussi man dama doon seetlu ni mbir buy am kii amnistié souvent bon le cas de Senghor moom le cas de Senghor moom. <laughs> Euh, moom moo ko amnistié boppam foo la fekk mais souvent. kii keneen kii ñëw moo doon amnistier mm, li weesu comme li daloon wàdd wàdd dafa ñëw amnistier li nga xam te ci période Diouf la woon. ce n'est pas au moment de partir yow heure bi waratu ko fi woon pratiquement fekk ay quelques jours moo ko fa daroon dese. oui gars yi la même personne qui qui arrive à trouver les moyens hmm. de sortir une loi. Oui. C'est pas facile d'écrire une loi. D'exposer les motifs, oui. de présenter le projet de loi, il arrive, toute cette énergie, toute cette intelligence, toute cette et volonté de prendre de cette décision. Et à l'inverse, on te demande une seule date pour nous sortir de ce problème-là, imbroglio. Si, vraiment, et il dit qu'il ne peut pas. Loolu moo tax tu savais en politique la bonne foi, la mauvaise foi, la morale, la démocratie, la république, ce texte nit yaa ko bind mën nañ jum mais am na foo xam ne boo fa tollee c'est le sens moral. Hmm. c'est, c'est vrai, la vertu parce que effort boobu yëpp pour na loi amnistie créer ñu woon dat mais. Euh, euh, xam nga prof la boo mën a am ah, ah, ah. avec les textes tels qu'on les a écrits dans nos lu nekk mën nga si dugal